asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taalibe yi. ginnaaw bu nu santee sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar cheikhuna Ahmadul Xadim ñaanal sëriñ Tuubaa cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér. ñoo ngi ñëwaat toog ci jataay boo xam ne ci ndigalul sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke xalifa sëriñ Saalihu yàlla na ko sun borom may fan gudd lool waa ànd ak yaram mu jëm ci liggéey bi nga xam ne baaxoo na di ko fàttalee at mu jot buñ toll ci waxtu wi te liggéey boobu moo di liggéeyu tooli lagan liggéeyu tooli lagan mu jëm ci ngóobum saaña mi nga xam ne at mu jot baaxoo nan di ko fa amal. liggéey boobu nag ku ne xam ne ne sëriñ bi dafa am jëwriñam joo xam ne sëriñ Saliou moo ko tànnoon def ko muy jëwriñu daara ja di alhaaji Samiyal saar sëriñ bi nee na mi ngi koy fàttali liggéey bi di ko ci joxaat cër bi nga xam ne moom la ko sëriñ Saliou joxoon. waaye nag di ko fàttaliwaat bokk yi nga xam ne ñoo dëkk Saalum ak ñi ci baaxoo dem ci dëkk ci biir réew mi incha allahu rabbi danañ leen tuddaat ci yeneen jataay ñu toog fii nag ci Touba korniis fas yéene yëkkati kàddu gi jox ko sëriñ Youssou jenn mi nga xam ne mooy wax ci turu Serigne bi waaye di wax ci turu njabootu Serigne Issa Dieng gépp bu ñu noppee jox kàddu gi sëriñ Khalil Lo mi nga xam ne moo mooy jëwriñu daara ja yor liggéey bi mu leeral ñu liggéey boobee ak nañ koy liggéeyee. suñu noppee danañ jox Serigne Ndonga Dramé mi wax ci turu waa Saloum suñu noppee Serigne Moustapha Diakhaté dana soññ mbooleem donga yi. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké mu Serigne Saliou ñu ko ñaanal bu baax suñu borom yàggal ko te wéral ko su ngeen gisee jotaay bi na xam ne sunu kàddu fi mu jëm mooy soññee liggéeyub daaree Lagan muy ngóobum saaño ñu di ko waaj incha allah départ bi le premier décembre. bii nu jëm sëriñ bi nag mi ngi jiital ak cant ci liggéey yi jiitu woon tey soññee ci liggéey bii nu jëm woote bi nag ñi ngi koy tàmbalee ci Cheikh Abdou jenn mi nga xam ni mooy xalifab Cheikh Issa sëriñ bu jenn mu sëriñ Baara sëriñ Sidi Naar jenn mi xalifab sëriñ Naar ak njabootu Cheikh Issa gépp di jiital itam ci woote bi tund Njenne Lagan wépp muy ñu ci niñ ko baaxoo woote muy Njenne Lagan xay mbayaar daaray Sidi Daaru Rahman daaru salaam daarul mannaan mesere cele tewru ngaari xay barka daaru salaam niis baxdaat lansaar tuubaa njenne ak curangeen bu dee fii ci tam ñi ngi soññi waa Touba Lansar ci njiital Serigne Cheikh Diop ak waa Ndande ci njiital Serigne Dame ak mboole mi daan àndal ak waa Njabel ci njiital Serigne Cheikh Dieye ak Serigne Cheikh Ndak di soññ bu baax tam jëwriñ ji nga xam ne moom la sëriñ bi tànn ci liggéey bi ci taxawaay yi muy Samuel saar di ko sant itam ci taxawaay yi ko jiitu woon di sant itam sëriñ baabakar ture mi nga xam ni moom itam moom ni jàppandal dem gi ak si Cheikh Abdoulaye jaay mi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllug euh, transporteur ñu ngi leen ci sant bu baax kon nag ñu ngi soññi mboolem taalibe bi yëpp te leen ci xaar dañ leen ni ñu leen ci daan xaare Lagan nag ni ko sëriñ Youssou mi ngi ci wetu Eh, sëriñ bi def na fa jàppandal goo xam ne ñëw gi dana yomb ci oto yu mag yi ndax ku ñëw ba Malka mën ngaa jaare foofu bu dee tëlib mbul bi it ba tey diggante boobu oto yi mën nañ fe jaar kon sëriñ baa ngi ko yëgal ñëpp bokk yi ak bokki dëkkandoo yi rawatina li gën a jege lagan di ñaan sëriñ bi indi leen ci jàmm te defal leen tawféex di ñaan it kaaraangeeg sunu borom mu gën ñoo sàmmal yoon yi bañ agsi ci jàmm waaye loolu itam mi ngi ciy fàttali borom oto yi bu baax a baax. di ñaan sëñ Touba nag mu defal ñu kaaraange ak tawféex ba ñëpp ñëw ci jàmm ñëpp agsi ci jàmm liggéeyal sëriñ bi te sëriñ bi nangu ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di leen fàttali liggéey bi nga xam ne le deux ci weer wi lañ koy def benn fan ci àjjuma nag la fanaan si ba sedd le deux liggéey bi ci ndigalu sëñ Moodu euh, ak sëriñ sëriñ xoj sëriñ Dramé Caaxumaati sëñ Cheikh Dramé Bayla kenn ku nekk ak la ko wër. sëñ euh, baabakar Seck moom ak yi magam moom bu jotee sëñ Babacar rek mel nañ lañ bëgg ca mag ñi ak suñ kilifa yooyu yëpp dañu ko mën a jot lil ci si alaaji Bamba sekk moom itam ci Daaru Xuddoos ak ñoo ko wër ala alaaji Seex sëñ Seex euh, Seck moom euh, xalifaab sëñ Xaw Seck moom itam ak ñi ak ak ak ak waa këram kon ñu ngi naan ci barke sëñ Saliou yàlla suñu àll bàyyi ñu fi sëñ Seex kon ñun ñëpp nañ maa si ànd fas yéene waajal liggéey yëpp tooli lagan tooli lagan nag ngóobum saañu la ngóobum saañu nag maa ngi soññi sama bopp di soññi mboolem kuy ñëw ak ku bëgg a ñëw ak ku yeble ci yoon wi ci oto yi ak ci waajtaay yi ñu war a ëndaale muy ay ngóobaan na ñëpp maa si ñëw te te kuy ñëw nga ëndaale ngóobaan ku mënta ànd ku mënta ñëwit nga nga wut ay ngóobaan te jox ko ñuy ñëw ak i takkoon di gën a soññee ci liggéey bu sell bi ci dagg wi ci yi ci diggante bi ak ci yi wadd ci suuf di soññee it ci buñ ko dee roñ nan ko yanu ci sunuy bopp tey wattandiku di ko teg ci wata yi ndax wata yi la cay ruus ca buñ ko cay teg ak la cay ruus ca buy wàcc ak ñi cay yéeg ca kaw loolu ak yàq la te kenn du defar du bëgg ku defar ba noppi di yàq kon noo ngi ñaan ñëpp ñu maase ànd ci gi ni ko sëriñ bi bëggee ñu defee ko ni ko donga ya nga xam ñoo ko liggéey ba tollu fi bëgg it ñu ko ni a jàkk ñu tegal leen ko fa nañ ko bëggee ku ni ko yanoo ak ku ni ko tegee ñu defal leen ko noona ndax loolooy loolu moo ci dëpp suñu ngërëm su seen xol seddee rek xolub sëriñ bi sedd te boobaa suñu aju fajo liggéey bi nag incha allahu rabbi mi ngi war a doon le 2 décembre depart bi nag sëriñ Abdou Touré mi yor ci wàllu oto yi nee na képp ku soxla oto bu war a jëm Lagan nanga woote ci balaa le 2 décembre incha allahu rabbi